bu yaakaar tasul woon duñ fi taxaw tey di wax waxu élection Sénégal waroon nañu weesu fu ñuy wax waxu élection yu démocratique te tey jii képp ku waxal yàlla ramener l'élection élection législative nous vous c'était un putsch organisé Vous tële vous J'en j'en cartes électeurs après avoir mis 52 d'avoir milliards d'avoir télé, a tële defarat pour pour warul wax émergence Vous tenez, régler problème au enseignement depuis 6 mois six ans Hier, les enseignants étaient dans la rue à Thiès et à Mour.

du moment élection d'accord Sénégal 60 ans après indépendance nous nañu wessu fu définir naka élection exiger des élections libres démocratiques man nak ku dañ ma fi invité dong Sénégal démocratie Sénégal n'est qu'un jeu dañuy ñëw ànd ak suñuy doom suma doom mu ngi fii samay dëkkandoo ñu ngi fii mu ngi leen di gërëm di leen sant génn leen ak